wéyal ak Aysatu Aïssatou euh, dañuy euh, door euh, li nga xam ne moom moo di jàngat li daa waxtaanee ay poñ yu bëri mu ñeel tolluwaayu jamono muy ñaari poñ bu njëkk bi ñu door ko ak li nga xam ne moom moo di passeport diplomatique yi nga xam ne nag jamono yi daal nay lëmbee réew bu Sénégal ñu tudd ci ay nit yoo xamante ni njort nañ ne laale nañ ci wàll wi. question bi ak euh, introduction bi day nuyu nag bu baax euh, sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu. Mhm. Euh, ak fu nu mën a nekk di leen jox seen wàccuwaay defe naa ne Sénégal moom réew la boo xam ne réew scandale la malheureusement. Mhm. et à chaque fois yooyu dafay ñëw ci période boo xam ne cher. Euh, wax dëgg yàlla du loolu la ñu soxla. te itam du loolu la ñuy xaar. te on se réveille un matin rek. affaire bi def buum suñu kaw euh, euh, cristalliser nag l'attention général boo xam ne wax dëgg fa yàlla fi réew mu toll on a d'autres chats à fouetter te bu gën a bu gën a pire sa morom rek nga ni bii la. xam nga bii nag moom da cee dafa dafa fekk nag wax dëgg yàlla ñun en tout cas daan nañu dégg. Mhm. trafic de passeport yàgg nañu ko dégg ci ñun réew. mais def naa bu toll nii. diplomatique diplomatique bi ak euh, qualité ñi ñu ñi ñu si tudd. Euh, fàttewuñu nag euh, présomption d'innocence. Mm-hmm. mais qualité ñi si tudd defe naa ne kooku ku mu choqué wul tiitalu la. Mm-hmm. ci devenir u Sénégal doy na waar. Mm-hmm. xam nga bi passé mercredi bi passé ne woon naa <clears throat> ne lii yëpp nag lu ñu ko yóbbee mooy di jël ay nit n'importe qui teg leen. ci ay poste yoo xam ne euh, amuñu sax profil waxuma sax waaye comme compétence amuñu ko mais profil yi amuñu ko cela veut dire que kon enquête de moralité ou defuñu ko ou dañ ko galvaudé ndax am na su ñoo xam ne wax dëgg fa yàlla ndox du bàyyi yoonam mënoo xëy suba jékki-jékki nii rek brusquement ñu ñu ñu tudd si ñaawteef yu mel nii te fekk ne yow musoo ko laal de par le passé musoo ci musoo ko laal parce que un délinquant demeure délinquant mu mu mu sol mu sol jesner def col blanc def cravate ak mu sol ay ayon ñooyam un délinquant reste un délinquant mais fañ leen investir tamit askan wala ñu fotel xam nañu leen. xam nga xam nga loolu li garaaw xam nga premier manquement bi. moom laa la wax ak tam loolu de si da nga da nga ma ñëwoon ci sama beneen ponk lu waral jëw jëy ji mooy naka sénégalais yi naka la ñuy tànnee seen ay njiit. xam nga premier manquement bi nguuru Macky Sall la moom mi jël yenn nit ñi tabb leen si yenn post lu doy na nag député dafa garaaw xam nga yii am nañ ko dégg si ay DG ak ay ministre hmm. ñu def ay ñaawteef fi mel noonu xam nga ñoo dàq leen yomb na vite fait hmm. choc yi kii ñu ñu mais ñii hmm. procédure la boo xam ne mérité wuñu ba pare euh, tur ba rek déjà ak euh, député du peuple ñu ñu ñoom ñu ñu ñu émanation sociale bu garaaw toggal fa togg toggal askan wi foofa ba pare euh, euh, cher imagine toi si ñoom am na si ñoo xam ne dañu yor ñaari ba tànk député ak président de conseil département président conseil département nga xam ne <coughs> hmm. saa yi mu ñëwee fii ne laa sëkkat loolu foog foog foog <laughs> mais saa yu ñëwee fii sëkkat loolu tamit foog nit ñi lijjanti ko vacciné du la tere saxar <laughs> déggal déggal sama noon bi ma jàkkaarloo donc <laughs> imagine toi euh, euh, Cheikh déjà yow député nga. loolu rek xoolal parce que man dama xam dama toog si yaag mu ne mais man lan moo jaral bu bu bu dul euh, tàmm ak gourmand euh, tàmm mooy tàmm laago la tàmm wuruj tàmm varaj ak euh, am am sa yenn yenn xeetu ñaatu yoo xam ne c'est c'est inné à la personne. wax dëgg fa yàlla ak ñàkk doylu xam nga yow nga nekk ministre. yow yow nga nekk député déjà. waxuma sa jàng sa dara ma mais nga nekk député loolu rek sa sa sax la. Euh, ci wàllu salaire am nga benn un million et quelque xaw ma trois cent xaw ma trois cent cinquante xaw ma lan waxuma laax nag yamu am lamboo ci ci ci ay avantage mais kooku ku santul yàlla ku santul li doo sant yàlla ku doyluwul yéi nga indi yow yow dèjà boobu rek dèjà yow waroon waroon tax nga maandu sant yàlla gënum say waajur ca la la fa yóbbu ndax yow yóbbu demoo fa ndax dangaa daq jàng ñëpp wala dangaa aay ci volonté benn nit la mu jël la teg la fa yow li nga waroon def mooy mat li nga doon jéem a sax tub sa bopp. pour bañ a xam ne dañu am ay une chance quand même parmi euh, euh, ñu tànn la parmi ay sénégalais yu bari. ñu may la une chance. pour nga parfaire sa bopp. taxawal sa askan. léegi yow nga amaat beneen double chance nag mooy nga nekk président de conseil départemental nekk donc doublement élu. président conseil départemental defe naa ni ñoom presque ils ont rendu ministre boo xool seen si ay avantage te en terme d' avantage. c' est c' est le ministre kon bu doon xaalis kese mais ñi na ñi namuñu daal ci wàllu xaalis kon pourquoi quel besoin ils ont. di di trente suivant et puis xool dem l'observateur bi est-ce que toi tu as lu l'observateur bi hier man ah, ah, gis nga affaire yooyu ba ma ko liiree ah, àggale wu ma ko. parce que du ma xool lu ñaaw. <coughs> soxna yu bari ñu. quatorze mariages. <laughs> waaw xoolal ka xam nga xam nga yooyu aussi noonu la ne la gis kii président Macky Sall dafa am ak dafa dafa dafa amel askan wi lay wu rëy parce que dafa ñëw te lépp rek pour neexal benn clientèle politique. dafa ñëw temps yi maa ngi gis def ay vaaru Mankeur Ndiaye ma koy nuyu sama sama sama sama grand boobu euh, ba mu nekkee ministre des affaires étrangères ci moom la ñu lañu ñu la ñu la ñu euh, soppar ñee lii te moom euh, maa ngi gis temps yëpp gars yi di ko di ko jàllale moom il avait préconisé il avait sonné l'alerte. Mmh. di mooy mooy bañ nee ba député yi yëpp di sàkku ne dañ ko yaatal seen njaboot xam nga foofu mën nga comprendre ne xëy député yi ñu waxoon loolu. dañ doon xalaat quand même parce fii dañ si réew polygame ñu euh, à l'époque lu fi yàgg nekk député yow la ak sa xanaa sa jabar mm-hmm. à la léegi ñoom ñu ñaan fii comme ñu bëri amuñu benn amuñu ñaar ay ñetti jabar dàngam la mm-hmm. ñu am ñu ñu ñaan sàkku ñu yokkal leen ko mais Mankeur avait préconisé rappeler leen ñoom lu ñu doon seen responsabilité par rapport ak askan wi mais par rapport surtout ak l'image du Sénégal mais qu'est-ce que euh, li mu wane te xoola boo déglu affaire da xam ne kon ñii yàgg nañ koo def. ils sont coutumés ça ça c'est des multirécidivistes en tout cas comme ni ma waxee ba tey euh, maa ngi maa ngi sóoraale présomption d'innocence mais nag yàpp a feu. kon loolu ba mu amee ñaawteef fii am. mu mu nekk kon euh, loo xam ne dafa dafa dafa dafay gàkkal askan wi. mais ma li ma doon xaar. quand man bëggoon naa yu mel ni man te te xoolal ñooñu fu ñu bokk. Mm. benn bokk yaakaar. mais Aïssatou doguma la le de de de l'Assemblée nationale donc dans tout ça. rôle Assemblée nationale man man man dafa am Cheikh ñaari ñaari entité yoo xam ne entité laa mën a wax yoo xam ne man bëggoon naa ñu ñu wone au moins seen seen seen seen indignation ñu fësal ko ba mu leer. ba pare jéggalu askan wi. Boubacar euh, Boubacar euh, il a parlé Boubacar Biaye. mais Boubacar ba xool ba pare xool yabaate googu non non mais après gis gis nga ba bañ leen wooyee ba léegi audition. bañ na ñoo ñëw. ñëwuñu léegi. Euh, xam nga <coughs> hors Dakar mais parce que li ma la wax sànq Cheikh. dama doon xaar man ñaar assemblée nationale laa doon xaar ñu def communiqué am nañu service service de communication. ñu def communiqué gis nga mel ni mu amee mbajum kanam borom a koy faj. Euh, dëgg la bëri bëggalees am na fu ne mais yu mel nii a ah, ah, ah, toll nii mu toll ak dayo bii mu jël <laughs> mais yooyu dama doon xaar Moustapha ñas ak euh, ay ñamu jiite bu ñu mënu bu ñu mënu mënu waxante ak askan ci beneen fànn fànn mm-hmm. dañ def au moins communiquer leer kenn laa dégg mu wax muy ay maru ñi te li mu naa mm-hmm. ndax moom mm-hmm. moom mooy président groupe parlementaire bi ñii ci moom la ñu la ñu bokk war na wax waaye assemblée nationale président ba lu ko teree wax lan moo tax ba defoo sax au moins un communiqué pour def euh, euh, tout en euh, respectant la présomption d'innocence mm-hmm. wax quand même ne assurer sénégalais yi ne euh, euh, euh, ñii kenn du leen protéger benn. deuxièmement manifester indignation bi. troisièmement daal di tere clair ne ne ñoom seen bopp dañuy jël seen indignation pour que xam ñu jébbal ñii yoon. Mhm. dans les meilleurs délais. Mhm. pour que justice soit faite mais surtout <clears throat> ça. xam nga fii dafa am lu fi xewoon gis nañ fi ñaari opposants yoo xam ne duñ. fa laa doon jëm problème. daar daar lañ leen leen parce que mhm. xam nga li gën a li gën a choquant mooy. affaire bi ñu bëgg a yàgg quand même ba ñooñu di balbalu ñoom ñaar ñooñu ñi kenn ku ne si ñoom yow balbalu nga tiitoon nga jëngal sa téléphone woo la journaliste woo la nga rag rag sa bopp sag sa bopp mais cette même chance là chance là ko mun tuddee parce que fi ñu bokk la mais imagine toi ñi fi jaar ñëpp ku mu jéegi Sonko la xool nañ ko patam patamee accélérer cadence bi rapidement jébbal ko euh, askan euh, procureur na ko jox nañu ko jëlal mais ñaar ñii te te te duñ sax ñaar ëpp nañu. ñaari yoo xamante ne mën na ëpp mën na ëpp te te wóor na ma ne l'enquête continue. l'enquête continue kii affaire bi c'est à très grande échelle. parce que lu leer mooy ñii bu ñuy voyager mais assemblée nationale am na am na noo xam ne war na yëg nañ. am na ñu ñu ñu euh, mën euh, na c'est affaire bi chaîne la bu ñu ko toppee. Hmm. yuuxu dina jib fi ñu ko foog kon. pourquoi ba léegi boobu ba léegi ces députés là solo impunis est-ce que ñun dañoo nekk ci réew boo xam ne nekk fa lañ nekk sax mais lii lii lii dafa dafay prouver encore une fois mooy dañu nekk Sénégal goo xam ne Sénégal de Macky Sall et Sénégal des autres mooy dans les autres nag c'est le peuple sénégalais mu ñun ñii parce que tey ñaar ñii gis nga député yi ñuy topp nii bu ñu nekkoon ci assemblée bu ñu nekkoon ci opposition ngay bàyyi àddina à la seconde près lañ leen di convoqué lañu tout accéléré en quatre jours ñu saraxe leen man je veux pas être naïf euh, Aïssatou mais gis nga les déclaration de principe dama ci méfier yu xam nga lu tax euh, nit ñi mën nañu wax euh, loi bi dina def dina leen atte ay mëru ñu ngi muy président groupe parlementaire dégg nga li mu wax mais pour man ay rafetal la rek mais pour man mm-hmm. pour man gis nañ fi cas Bougazelli mm-hmm. fu mu mujjee Euh, ñii. Euh, euh, tey am na benn journal bu wax ne sa sa manœuvre sa manœuvre pour que ñoom ñaar ñu bañ leen. moom moo jébbal. déedéet déedéet non non Cheikh moom am na am na am na audace. déedéet demeewul noonu xoolal Bougazelli kaa ma wax la déclaration VAR baa ngi fii. Hmm. dana carrément démissionné xalaatuma ko. loolu la wax. mais après xam lu mu demee Macky moo jaar ci suuf yónni ay ñoom Abdou Abdou Mbow yónni kii <clears throat> ba lu ma leer mooy euh, euh, bu ma cee bàkkaar mais lu ma leer mooy Bougazeli mii nga xam ne xam na li avantage député mm-hmm. xam na tamit protection bu mu kii ak yooyu dala leen Bougazeli wañ li tax wañ loxo bi bul xam nag ni ñu ko tegal ci suuf à côté ne ko li di nga ñàkk lii waaye di am mm-hmm. leneen c'est ça Bougazelli bu du woon loolu dem Bougazelli démission contrainte et forcée la moyennant quelque chose ci suuf loo xam duñ ko jëkk Sénégal lañ ne benn ñaareel bi mooy tey jii euh, impunité bi bu continuer xoola bopp ba léegi xoola tey journaux yi li ñu wax te dëgg la sa manœuvre parce que sa manœuvre ferme pour bés bu ñu demee parce que c'est sûr que ils vont euh, euh, dañ def procédure levée immunité ndax mamba gi ak réer ak ak niiraay bi attanuñu ko mais loolu la yaram ñëpp xam nañ ne Macky Sall moom fi toogee ba léegi képp ko am chance laa la wax képp képp ko am chance. Mm. bépp malfaiteur bu am chance am carte benn bokk yaakaar mm-hmm. yow. presque yow santal yow presque yow téye aux anges. yow sauvé nga euh, mais Aïssatou dafa. parce que il protège Macky Sall protège. ce que tous ces malfaiteurs il surtout ci contexte boo xamee ni tamit mi am ay activistes yoo xamee ci même problème. mais falaay ñëw falaay ñëw beneen beneen beneen falaay ñëw parce que xam nga xam nga boo gisee malheureusement pour eux. Mhm. boo gisee si ñoom seen bos demee nii mu demee. Mhm. c'est parce que leer tax ñu ne xaaral ñu demee mais day xool. levée gis nga procédure de levée immunité parlementaire bi ñu naan bi ñu bi ñuy waajal loota bu mm-hmm. parce que ay tractations ci suuf Macky Sall comme ma waxee rek lépp Macky Sall mooy ndeyu mbili gi tout ce qui nous arrive. moo ñu ko teg fii lépp moo ma ndax moo jël n'importe qui jox ko n'importe quoi ba pare. Macky Sall est réputé ku ne xam ne forum lool la moom il est euh, extrêmement dur et sévère avec képp koo xam ne sama xeet gi ñu ñàkk fay la ñi nga xam ne ñun ñooy taxaw di nga di nga di nga xajamalal waaye il est extrêmement protecteur ak bépp malfaiteur boo xam ne nii tu as cette chance là d'être proche de lui léegi nag boo gisee affaire mu demee nii yàgg nii c'est parce que ñu ngi jënd si suuf li ñu jënd suuf mooy comme ñàkk nañu pexe xoj nañ leen réew mi xoj na leen àddina xoj na leen parce que nag passeport diplomatique image Sénégal te y a la représentante diplomatique léegi kon ñàkk nañu pexe ils sont obligés de lever cette immunité de parti en tout cas de de, de procéder à la levée léegi nag xam nga fu mu naa demee mooy lu journal wax tey te tamit dëgg mooy dañuy nooyal ba mu nooy mais comme bala ñoo def seen seen seen vote kii yooyu seen seen tappale yooyu rek vote da xaw ma lan yooyu ñu seen vote yooyu ñuy voté mm. dañuy nooyal ba mu nooy baliser terrain bi. li jënd ko naax naa parce que liy gàcc humiliation encore une humiliation de plus sur Macky Sall. léegi nag nu muy demee mooy boobu ba léegi lu ma leer mooy ñee moom xam naa ni Macky Sall recevoir na leen moom. ñan yi nga xam ne euh, espèce député yi nga xam ne yaay tout tout député moo fa nekk. boo hmm. demee Macky Sall doo recevoir ci suuf dina recevoir ci suuf wala mu yebaleen ay nit c'est clair léegi nag ñuy nooyal nooyal bi mooy. bëgg nañ bu ñu demee ci bu ñu organiser cérémonie ba. Hmm. di nga dégg nag loo xam ne mosoo gis. dina ci di taxaw ne carrément non oh, parce que passe au mm-hmm. consigne la ñuy am ñu non bu ñu nee non léegi su mën suba la ñuy taxaw jàkkaarloo Sénégal yi ne ñun kat def nañu kii bi cérémonie bi. Mm-hmm. il y a eu tant de oui tant de te noo bàyyi bëri levé ñu ko a ko àddina la. nañu def bu boobaa Sénégal ñu léegi <laughs> vas-y. Euh, léegi rapidement ñeneen ci ñoo xamante ni euh, laale nañ ci mbir mi. ñu di ay activistes. à chaque fois ñuy wane ne que ne ñoom dañu taxawal pour xeex li nga xam ne moom moo di intérêt commun donc bu ñu demee ba ñoom ci seen bopp ñu leen gis ci loo xamante ni euh, naka su dul noonu la jamono yi. xam nga euh, Cheikh mbir mi euh, Cheikh boobu Cheikh Cheikh boo xoolee man affaire activiste yi muy sama frère yooyu nekk Y'en a marre boo xoolee ba mu commencé ba léegi nangu ma cee wax même site bu ma woo dama la naan carrément mën naa wax ci lépp. mais mm-hmm. du ma dugg ci Y'en a marre parce que dama jàpp ne. Euh, ñoom samay frère lañu. c' est vrai on a eu temps yii passé. <laughs> <laughs> man ak ñoom a ak ñoom temps yii passé parce que. waaw waaw vite levé ba samay frère lañu xam nga ndax maa ñoom ñoo yem. Mm. tànk di nekk si ñoom lu ko raw moo nekk ci man. xam nga ma la wax donc def naa fi benn chronique le 23 juin mm. euh, xoos leen. bu baax ñoo ñu génn ba ba ba ma pare ñoom ñëpp ma attaqué loolu moom moom njëkk a ñu xuloo ma nag moom ba mu saf sapp dégg nga ñu pare si moom moo moo fa gën a yaru euh, woo na ma ñu kii xuloo nañu mais on s'est parce que ñoom samay frère lañu ah, euh, la première fois de ma carrière ma jot man sommation interpellative ñoom ñoom ma ko yónnee bañ ma ko yónnee sama avocat euh, sama avocat yi laa leen ko jox ñu toon ndax man xam nga du ma daw ragaluma dara loolu yàlla yonenteem bi mais du daw Euh, te bu te lu am tamit ma assumé ko. donc bañ bañ ma ko yónnee euh, <clears throat> sama avocat yi ma c' pour moi de remercier encore une fois maître Abdou Dialy Kane euh, sama avocat de longue date de tous les temps. sama mag la sama xarit la sama lépp la di gërëm tamit maître Anta Mbaye ñoo ñoo ñoo ñoo téye yëf ya tontu leen bañ tontu ba léegi xaw ma nag fu ñu fu mu mujjee wax dëgg yàlla je n'en sais du mais loolu dama jàpp ne loolu mënut a ñàkk ci ay nit ñuy ànd parce que ñoom man ak ñoom dañoo yàgg. Euh, dañoo yàgg ndax ñoo ñoo ñoom defe naa ni ci émission bu ñu mus a def ñoom ñoom ñoo ce des artistes émission yu ñu mus def bu ñu njëkk def bu dul divertissement ak man la ñu yàgg bu baax séq lu bari bari donc lii leen li lii lii am nii man dama man dama ci gisaale sama bopp parce que xam nga lan la euh, ñoom yaanaama dañu am benn mérite boo xam ne man bëgguma dara xew ñu fàtte loolu euh, d'abord te man je suis présente je suis témoin Euh, li njëkk a def si Sénégal fii ñoom ñooy artistes yoo xam ne seen dë seen degré d'engagement kenn mënu ko seen degré d'engagement ci peuple bi. kenn mënu ko naatable parce que avant ñu créer Y'en a marre ci seen seen production musicale yi. Mm-hmm. dañ doon kër gi ah. kër kër gi mm-hmm. déjà. lañu di ñoom toute leur vie moo tax euh, euh, tey je sais que tey jii am nañu ay euh, tey dañuy dañuy rencontrer le juge du deuxième cabinet si seen sort tey lañ ko décidé waaye ma ko yàlla ma leen ko mais je sais que waa kër gi ah, kilifa en l'occurrence prison xam na ko bu baax miin na ko lool. ndax yàgg na faa dem depuis Kaolack depuis waaw c'est gis nga Cheikh dama bëgg a may mu tuuti rek. ma ma ñëw ci ñii parce que ñii. Hmm. ñi ci ñi may wax. mosuma see dugg c'est la première fois ma nangu ci wax. Mm-hmm. parce que dama maax ñoom ñoo bokk ndey ak bàyyi. Mm-hmm. ñoom prison kilifa ak ak caat. Euh, prison ci Sénégal laa la wax. Mm-hmm. bu amee Ablaye Wade ak politicien bu ñu mën a taxaw ne ñun miin nañu prison gënuñu koo miin ñii door nañu leen ba tàyyi. te boobu kër gi rek la woon boobu yaanaamaat kenn xalaatoo ko créé boobu benn artiste Sénégal xalaatoo dénoncer les travers des hommes politiques. si ñoom ni ñu ko doon defee. ça leur a valu ce que en terme de de maltraitance mais ñu nangu ko dañ doon ñaata yoon lañ dem prison pour sénégalais yi kon ñii seen seen seen gëm Sénégal ak seen bëgg sénégalais yi kenn mënu ko naataable et loolu dafa yàgg ça fait plus de vingt ans ñu nekk ci. ñuy xeexal askan wi di xeex askan wi ci seen ay son ci seen ay son conseil ñu leen di dóor. ñu ko ñu def ko tey ba Y'en a am ñoom ñooy porte étendard Y'en ñu bàyyi qu'est-ce que qu'est-ce que ça leur a coûté. ba dara xew ba ba jàkkaarloo Abdoulaye Wade moom méttee. ñoom ñuy ay artistes émérites. di ay xale di ay ndaw. képp koo jël si ñoom père de famille la kilifa la. ñu am njaboot am jabar am ay ay ay doom. ñu am carrière artistique. ñu bàyyi seen carrière yooyu. mettre ko entre parenthèse. songu soobu ci Sénégal. kon tey bu alternance amee kenn mënul weddi waa waa yaanaamaan yi am nañ ci participation xaaral ak Cheikh mu ñëw mm-hmm. am nañ ci participation mm-hmm. donc ñu def loolu di xeex di xeex di xeex di xeex ba ci suñu doonu yaan tey yi ñëw xam nga fakkasalu mën ta mën ta ñàkk mm-hmm. fakkasalu c'est Sénégal c'est un pays boo xam ne où les gens ont la mémoire courte ba pare jamais demee tout le temps ils aiment brûler leurs stars ce pays là aime brûler ses stars yàqamte nañ ci borom tur mu am jafe-jafe mu daanoo du ñu xalaat ne kii nit la ñun du ñu ay yàlla du ñu ay malaaka mën moo juum te dama jàpp ne je ne l'absous pas mais dama jàpp ne erreur am na juum am na te xam nga juum bi lan la la kilifa njëkkoon wax laa gëm ndax man xam naa bu baax kilifa ñoom gis ñoom ñooñu ñëpp xool rek la ñu yor xool yu rafet rafet la ñu yor te ni yàgg dooru waar si ma wax na ko fi wax naa ko fi keroog devant si moom si moom moom njëkk a jaay sama téléphone euh, Samsung man moo xam xamaloog sama Samsung te boobu dara xewul xam ma la wax donc xam nga ñoom is ban genre nit lañu dañu dañu loyal dañu engagé kilifa lu ko doy lépp lépp lu ko mës a dal lu ko mën a dal xaritoo te foofu ça pose le problème maintenant mooy cher mooy grand li nga wax sànq mm-hmm. la confiance ça n'absout rien du tout du tout mm-hmm. mais mm-hmm. Euh, li ma bëgg a wax foofu Cheikh pour revenir à ta question bu nga a préser parole bi d'accord pour revenir euh, à ta question mooy euh, man ci li daal ñoom kilifa. dafa ma metti c'est une blessure profonde parce que dama leen a yërëm yéenewu ma leen ko tey xam naa ñu leen ko yéenewul bëriwul kenn yéenewu leen ko ndax ay jàmbaar lañu léegi lii xam nga la lay posé man muy ma ku mel ne man ñii mooy activiste nga wax. ku mel ne man mii nga xam ne yaa ngi taxaw di am ay position mm. yoo xam neexul Macky Sall nañu def nànk nañu moytu. xam nga moytu mooy lan man man mii je suis devenu ñi may waxal ñëpp ñi nga xam ñi may jéem a téléphone xam nañ ko xam nañ ne man je suis presque injoignable au téléphone parce que dañ lay piège. Hmm, c'est ça dañ lay woo téléphone daf la haut-parleur di la wax loo boo mel ne comme man nga xam ne maa ngi àppaara moo tax sama mbokk yi dañu ma ne bàyyi téléphone ndax man lu ma nekk laay wax ma ne mais man bu subaa tam bu ñu ma génnee samay ay mais damay taxaw assumer. yaa ngi dégg te c'est ce qu'ils ont fait kilifa lépp lu ko dal jàppale xaritam moo ko ci dugal xaritam boobu da nga xam te loolu tam mooy xoolal la dégg mais Aïssatou c'est que boo waxee noonu euh, mais jeexal rek boo waxee noonu daal ni ñoom activité yi danoo juum est-ce que aussi mënuñu la reprocher député yi ñoom nu ñu def juumuñu. non député yi xam nga pourquoi ma ni euh, Cheikh euh, kii grand sa question Euh, super pertinente. xam nga député xam pourquoi ma ne mënu ma mënu maa mënu maa mënu ma leen opposé. Mhm. pratique yi wu juum dama ne ñii ay ay mag lañu dara justifié wul ne ndax ndax ñoom kilifa à part ay way kenn xamal amee ay activité professionnelle mhm. mais ñee ay magum jëmm la ñoo xam ne qui sont coutumiers des faits mais ñii de xoolal euh, euh, absurde ma kenn mais dama bëgg wax ne xam nga ñoom ñoom kilifa dama ne. Mhm. dama dama dama point de vue lépp lu leen dal lu leen si ko dugal d' abord mooy peut-être. bëgg a rendre service à un ami xëy na mm-hmm. après mu am ay techniques dugg mais euh, euh, cher nga nga baal ma foofu laa bëgg a jeexalee mooy xam nga Sénégal léegi imagine toi Euh, man des fois damay lire di gis ñu kontaan si ne le mouvement Y'en a marre est décapité man man loolu ça me fait mal xam pourquoi sa me fait mal mooy. Euh, sentinelle yi. waaw euh, c'est-à-dire Sénégal voilà c'est-à-dire voilà man dama gis ne man man ñii de xam nga laa bëgg a waxal Cheikh nga baal ma rek maa ngi jël sa temps mm. mais sénégal yi nga xam ne. Mm. ñi ngi nekk ci réseaux sociaux yi. Mm. di kontaan ci li dal Y'en a marre waruñoo kontaan dañoo war a tiit dañoo war a soutenir waa Y'en a marre xam nga pourquoi parce que Y'en a marre ñoom au moins bëgg nañu Sénégal seen bëgg Sénégal kenn naataable parce que moo tax sànq ma j'ai pris tout mon temps pour rappeler le combat de ces jeunes là. muy xoolal ñoom ñoom yaa na maar. li ñu def noonu. moom mooy ma sama genre yi na ne amuñu dara wekkuñu fenn ñu ñëw taxaw courageusement di dénoncer les tares de Macky Sall et de son gouvernement. Mm. kon bu kenn taxaw fii tey di yéene. kilifa ak Simon ak waa Y'en a marre ñu yaa parce que gis nga Y'en a marre jii bu bu ñëpp toogee tey di seetaan Y'en a marre Sénégal mooy ndëmmeel parce que kon on va prendre tout le Sénégal remettre entre les mains de Macky parce que les autres là man ne m'intéresse pas xam nga te foofu dafay ñëw honnêtement moi je n'ai compassion pour ces députés là nga xam ne euh, qui font n'importe quoi mm-hmm. euh, te foofu daf may may ma ma ma ñaan quelqu'un comme Guy gis nga euh, moom je ne l'apprécie pas musuma ko nëbb je ne l'apprécie pas. mais activiste la comme comme ñeneen ñi. non non ñoom ñee ils ont une longue tradition d'activisme mais kii kii day def activisme euh, peut-être c'est c'est son autre métier reconversion professionnelle la. Mm-hmm. mais dama ma ko a wax. rapidement Aïssatou waaw li ma ko euh, mooy gis naa bëgg dem tamit mu demati encore xam nga moom. Mm. ruus na li ma koy messi Guy Marius Sagna mooy dafay yàq liggéeyu suñu genre gii ñun. Mm-hmm. parce man damaa bëgg un légaliste. yow munoo ne Guy Marius Sagna kenn mosu ko dégg ci àddina muy dem ci marche autorisée. marche non autorisée lay dem bu demee ñaan yàlla ñu jàpp ko mu defati encore buzz alors que loolu il nous il nous retarde. aujourd'hui Sénégal dañu soxla. Mm-hmm. Euh, activiste boo xam ne man xuru xaraa sax moo ma gën a xuru xaraa moo ma gën a la kii Marie Sagne parce que c'est pourquoi xuru xaraa da nga xam ne kii bëgg na réew mais kii Marie c'est un c'est un activiste professionnel qui fait n'importe quoi et qui sabote le travail waxal Karim waxal ah? Karim parce que tur bi nga wax waaw xuru xaraa xaw donc mënu ma ko wax mais daal maa ngi ñaan chef foofu laay jeexal nga baal mag laa mag buur la ngeen baal ma gis naa xaajement yi dala sonal mm-hmm. mais damay ñaan vraiment et et et je je je sama xol laa ko tibbee mm-hmm. Euh, damay ñaan tey sénégalais yëpp na ñëpp taxaw tey nañu fàttaliku la combat de Y'en a marre nañu fàttaliku ne ñii ay sénégalais yu mag la ñu bëgg Sénégal dañoo fakkasalu nag. Mhm. dañoo fakkasalu mais waruñoo daanu te kenn warul taxaw seetaan waa seen Y'en a marre di daanu kon tey damay ñaan bés bi tey mercredi tey nga xam ne bés bu important la pour la démocratie sénégalaise. Mhm. bés bu important la pour la parce que sëñ Bass mii du may dara ñii. Mhm. ndax sëñ Bass a un patron. boo xam ne voilà. Mm-hmm. léegi damay ñaan tey sénégalais yëpp tey képp koo xam ne fi nga toog mm-hmm. lépp loo mën ci. Euh, union de prière et union de cœur. Mm. pour ñu ñu jàppale suñu frères yooyu lii sedd guy lépp lépp tàbbi géej. Mm. ba pare ñun nañ si jël ay leçons ci nañu moytu. nañu def nànk nañu def attention nañu moytu ndëkk sërëx yi ñu Macky Sall ak nguuram di tëral. Mm-hmm. loolu laa bëggoon Cheikh euh, nga may ma ko ma wax ko. di di di ñaan yàlla nag tey wax dëgg yàlla kilifa ak si Simon. Mm-hmm. ñu bu doon sax liberté provisoire ñu may leen ko. Mm-hmm. ñu dem seen kër. noppal defar defar seen défense parce que du ñu daw. du ñu daay mais seen place c' est pas la prison. prison am na place mooy député yii wayu yii ñun ñu dugal assemblée nationale ils ont leur place à l' assemblée mais pas Kilifeu et Simon. merci beaucoup merci beaucoup Aïssatou amoon nañu yéene waxtaane li nga xam ne dañ koy waxtaane mu di wàllu ndóol mi fii ci bu Sénégal mais temps bi. non non non cher cher boobu non on commence on passe à l' invité. waaw non yaa ngi ci biir voilà yaa ngi ci mu ñibbi. koy mottali benn mais Amadou Hott. Mm-hmm. ku yabaate la. Mm-hmm. weesu mu toog ne na fi. am na Sénégal am ah, na ñëw sama kër. Uh-huh. d'accord ñëw sama lu may ndekkee lu may añ ak lu may reeree. d'accord ku yabaate la ministre boobu. d'accord ah. ñu di ko ñu di ko jaajëfal bu baax a baax ay surtout euh, Diop ci li nga xam ne moom moo di euh, jàngat li dellusiwaat ci mbirum euh, kilifa ak itam ki nga xam ne moom moo di Simon ci dossier boobu dañuy wax lu ñeel wàllu wàllu euh, forme ak itam fond jàpp ne rek ñëpp ay doomi aadama lañ confiance euh, fu mu amul fu nekk foog naa ne nit ñi duñ mën a jëflante euh, comme ni ñu ko bëggee saa su nekk ñu woyal jotaayu mbokk yi mu mel ni nag huit jot na ba tegal quarante quatre minutes ñu sóobu ci leneen dalal suñu gan léegi léegi ginnaaw bakk bi.